yéen ñi gëm alquran su ab kàccoor ñëwee indi ab xibaar na ngeen ko birlu maanaam na ngeen leerlu xibaar boobu bala ngeen ci addu ndax wolof sax dafay wax ni seytaane waxul dëgg waaye yàq naw xel seytaane nag dafa am ay missionnaire am yoo xam ne ay nit lañ ak i nopp toujours rek dañuy taxaw di jéem a indi ay jiixi jaaxa ci xolu jaamu yàlla yi nag buur nee na ci suratul xujuraat يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم buur ne yéen ñi alquran bu ab saay-saay ab kàccoor inde xibaar jox leen balaa ngeen ci àddu na ngeen birlu bala ngeen di wax ci deru nit lu leerul ba bu ëllëgee ngeen rëccu kàddu yooyu nag li tax ñu koy yëkkati fan yi yëpp ñu ngi dégg coow ci benn suwaay bu sant Jàllo di def ay live am ci xawma eh, TikTok la xaw ma num tudd di jéem a tuutal Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu maa ngi lay fàttali dara Cheikh Ibrahim Niass yaa mujj wax ci moom te ba tey fay doom baa ngi gën jëm ci karam waxoon na ko bu yàgg ne faydu bi ñi ciy jéem ñi koy jéem a dëdduloo nit ñi ñoom la nit ñi di daw waaye faydu bi kenn du ko daw kon nag soo amee sa ba dégg ab wax muy wa man yuhibbuni wa man yaraani fi jannatil xuldi bila buhtaani iz annani xalifatu tijaani mawhibatan min ahmad al adnaani nga dégg wax jooju taxaw bëgg lëndëmal ci xelu nit ñi di wane ni Baye Niass dafay woote lu yonent bi sallallahu alayhi wa musta woote te loolu du dëgg jëlal ma jàngal la Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ay dof toppuñ ko ay way dese toppuñ ko ñu ñàkk xam-xam toppuñ ko ñi ko topp ay borom xel yu sell lañ أي بروم خم خم لين أي برومي خل لين تدي جفن دي كوسيني خل مومتي بوبام سنت نيالا تلول الحمد لله نشأت طاهرا ما قد تجالست صفيها ولم أصحب سوى فهول العلماء باين سنتنا يالله ba ma sosoo ci lu teey maanaam ci diggante ñaari woy jur yu baax musuma toogaale ku dese ku dese nag mën naa toogaale baay ku dese mën naa ñëw askan le boppam ci baay waaye baay moom mësta toogaale ku dese mësta boole ci mbooloom yi tamit ku dese ku dese nag mën naa ñëw ne ci laa bokk mën naa ñëw toogaale ak moom waaye moom toogut ak mom mu ne musuma àndal ludul ñi nga xam ne ay kuy lañ ci ci xam-xam loolu benn la bàyyi ñas lépp lu mu wax ci sunna la tegu ak ci alquran wax ji wa man yuhibbu nii wa man yaraani fi jannatil xuldi bila buxtaani ba mu ko waxee ay taalibeem bàyyuñ ko ci déglul bu baax dafa am benn taalibeem bu tudd السيد مجزوب مدثر السوداني لاج باي نياري لاج بن لاج بموي وخو شيخ تجاني رضي الله عنه بميواني واني قدما يا هاتان على رقبة كل ولي لله مونيكو لول لان موي معنا بي باي نيكو قدماه هما الشريعة والحقيقة ñaari ndëggoom yi mooy sharia ak xaqiqa sharia ak xaqiqa nag sharia ak dara doxut seen seen diggante xaqiqa mooy sharia buñ dégg kon nag loolu mooy benn laaj ñaareelu laaj mu ne ko ma maana qawluk wa man yuhibbuni wa man yaraani fi jannatil xuldi bila buxtaani lan mooy maanaay sa wax ji nga wax kon nag déglul baay wax la lim namm ci waxam ji balaa ngay waxe ci làmmiñam loo xam ne yow xamoo ci tus moo tax ma jiital ne buñ la indilee xibaar da ngay gëstu ba pare Baay Ñas radiallahu dafa daf ko tontu ne ko man yuhibbuni li nuurillahi alladi yara fiya laa li haadihi suura képp koo xam ne bëgg na ma ngir leerab yàlla bi muy gis ci man waaye waxuma rek ki bëgg sama jëmm ci kon gis nga li yàlla def ci moom ci alquran li yàlla def ci moom ci xam-xam li yàlla def ci moom ci mbaax ku ko bëgg ngir loolu yow bëggo ko xam-xam bi nga bëgg alquran gi nga bëgg mbaax gi nga bëgg àjjana rek yàlla sax bam ñuy wax naan ñu ba muy wax yonent bi sallallahu neel sa gaañi su fekkee dañ ma bëgg man nañ la bëgg yow kon gis nga yonent bi bëgg ko sabab la ci yàlla bëgg la te yéen ñëpp yéen fi dëggal ne boroom xam-xam yi ñoo doon yonent yi ay mazahir lañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam innamal warasatul anbiya kon ñu mel noonu donn ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam xam-xam doll ci ñoom ñoom ci yonantu bi alquran donn ci yonantu bi jikku ku leen bëgg dafay mel ni yonantu bi sallallahu alayhi wa nga bëgg te almaru maa man ahab nit ki kim àndal kim bëgg moom lay àndal jëm àjjana waaw te gis ngeen safara ma naqulu li jahannama xalim talati wa taqulu hal min mazid yéeféer yi ñoo ëpp jullit ñi de yéeféer yooyu ñooy feesal safara waaye jullit moom du dugg du dugg safara loolu leer kon Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu waxam ji moom moo firil boppam du yow saay-saay bi yaay waxee ci làmmiñam di wax la neex loolu benn la wax ji nag wax ju wér la mën nañ ko dëggal ci yeneen wax yu wér ci sunna incha allah boo ñu dégloo dina leer euh, mën nañ ko dëggal ci yeneen wax yu wér ci sunna yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ci xadisu jaabir jaabir ibn abdullah radiyallahu anhu xadis bi boo demee ci tirmisi dinga ko fa fekk ba pare tirmisi ne xadisun xasan boo demee ci addiya bu almaqdisi di nga ko fa fekk muy xadisu jaabir ibn abdillah radiallahu an dafa ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tamassu naaru musliman ra'aani maa ngi ñëw ci man yuhibbuni wa man yaraani baatu man yaraani wax naa la baatu wa man yuhibbuni mbëggeel la wax képp ku ma bëgg ni ko bàyyi firee képp ku ma bëgg ngir leerab yàlla bim def ci man waaye nag maa ngi ñëw ci képp ku ma gis yonentu moo ne laa tamassu naaru musliman ra'aani aw ra'a man ra'aani yonentu bi sallallahu alayhi wa nee na safara du lakk jullit bu ma gis wala mu gis ku ma gis ba euh, jaabir nettalee loolu mu ne qaala talxatu طلحة نه فقد رأيت جابر بن عبد الله من دي جسنا جابر بن عبد الله وقال موسى موسى نه وقد رأيت طلحة من جسنا طلحة قال يحيى يحيى نه وقال لي موسى موسى نه نما وقد رأيتني ونحن نرجو الله من يتمت جسنا ما تنين نب نيجي يا كاريال تيمايام غوغو مدفال نكو lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moo ko wax kon gis nga silsila boobu nag mën naa law ba suñu jonn yàlla tey jii waaw ba suñu jonn yàlla tey jii saxaaba yi ñi leen gis ci taabiina yi waaw gis gi nag dégg naa ci say biiri wax nga naan abu lahab gis na yonent bi wala gisu abu lahab gis na ko waaye xadis bi dafa préciser laa tamassu naaru musliman kon ru'ya bi charte bi da nekk julit ba pare kon abu laab ak abu jaal ak ñoo ñëpp ñun ay borom xel lañ dañuy analyser xam nañ nan la xam-xam di doxee laa tamassu naaru musliman raani kon setti na ci kudul julit abu laab ak ñooñ duñ jullit bàyyi ñes ñi ko doon gis te duñ jullit ñoom bokkuñ ci yaa ngi aw raa man raa nii wala ku gis ku ma gis saxaaba gis nañ yonantu bi taabiin nay gis nañ saxaaba yi taabii nay gis nañ taabiin nay boo ko toppee ba suñ jamono mën silsila bi mën naa jokku ba tey jii kon loolu lu mën a nekk la xadis bii nag maanaam dafa leer nañ li muy firnde mooy te salsulul anwaar càllal ak leer ak yonantu wa sallam ba yegg si kon boroom xam-xam bi nga xam ne jokk na ci càllala googu képp ku ko gis sa xaram na safar te Baay Ñas bokkoon na ci ñooñu radiyallahu anhu waxuma gis ak gént ak wala gis yu mel noonu déedéet kon loolu benn la ñaareel bi mooy sax na ci sunna ba tey ñu jëlee ci saabit radiyallahu anhu mu ne kuntu ida ataytu anasan radiyallahu anhu yuxbiru bi makaani fa adxulu alayhi fa axudu yadayhi fa uqabbiluha mu ne su ma daan dugg kër anas yuxbiru bi makaani fa adxulu alayhi su ma duggee fa moom dama daan jël ñaari loxoom yi fóon ko wa aqul bi abi هاتين اليدين اللتين مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عينيه وأقول بأبي هاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم mu دمران جل أي لهم فونكو ني إيه ko eh, yow maanaam jote naa sama bakkan yow yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam bi abi anta wa ummi ya rasulallah haatayni lyadayni ñaari loxo ngi xam ne laal nañ ñaari loxo yi laal nañ jëmmi yonantu bi sallallahu alayhi wa kon dama leen di foon mu ne su ma paree ci loolu foon ay bëtam ne ñaari bët yi gis nañ yonantu bi sallallahu alayhi wa hadis boobu ابن أبي حاتم أبو ليلى سولونينكو الحافظ الهيثمي من رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أبي بكر المقدمي وهو ثقة góori hadis boobu yépp góoru saxiix lañ boo demee mooy ñooy góor ñi nga xam ne ñoom ñoo solo hadis yu wér bam des ku ñuy wax Abdullah ibn Abi Bakrin al Maqdami moom ñëpp xamee nañ ko siqala xaafiz ibnu xajar indi na xadis bi ci almatalib al aliya hadith bi nag dafay dëgëral xadis yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wax ni xamsun min al ibada donte ka boobu daayifal nañ ko waaye xadis bu amee ay tawaabi wala ay shawahid dina wér ci biir xamsun min al ibada يونت داف سي واخ واخ جو ام سولو والنظر في وجه العالم عباده قول كي خر كان ماك بروم خم خم ريك لولو جام يالا دار قوتني موكو سولو حديث بي امنا اي شواهد ديلمي انكو تي مسند الفردوس واو كون دون تك سند بي امنا ضعف واي معنى بي ورنا te lii dañ ko jagleel boroom xam-xam yi kon nag rawatina ab waliyu yàlla waliyu yàlla yi nga xam ne yonantu bi sallallahu alayhi wax na ci ñoom bañ ko laaje waliyu yàlla yi mu ne bañ ko laaje ñan ñooy waliyu yi mu ne alladina ida ru'u zukira allahu azza wa jal mooy ñi nga xam ne boo leen gisee rek ñu fàttali la yàlla lafz bii ma wax nag ابن أبي شيبة ابن أبي حاتم النسائي في سنن الكبرى ابن مبارك في زهد الدولابي في الكنى ابن أبي الدنيا في الأولياء الحكيم الترمذي ñoo ko génnee ci lafz bi jëlee ci abdullah ibn abbas radiallahu anhu ba pate ba patey tamit abu nuaym al asfahani solol na ko ci xulya jëlee ci abi saidin al xudari radiallahu anhu kon gis nga yonantu bi sallallahu alayhi ni mu définiré waliyu mooy ki nga xam ne boo xoolee mu fàttali la yàlla lu lay fàttali yàlla nag loolu jaamu yàlla la lépp lu lay fàttali yàlla jaamu yàlla la kon nga xool say bët ci jaama bi yàlla bu baax xoola ngërmande xool ak gërëm ngëneel gi yàlla def ci moom loolu yalla mën na cee dugal àjjana ta xam ngeen yéenay wax ni jaamu yalla moy dugal nit aljana waye jaamu yalla duggalul kenn aljana jang ngeen ko yoonu bi sallallahu alayhi wasallam neena na kenn ci yeen jëfëm du ko duggal àjjana ñu ko ba ci yow mu ne waaw lu dul yermande bi yalla ñëw yermande bi yalla nak ngeenel la kon japp aljana xatal ko ba melni pos ubi safara yaatal ko ba melni geej loolu ngeen war a baax te dem jàngiwaat ngir mën a dégg aaya yàlla yi ak waxu borom bi tabaraka taala ba ngeen mën a génn ci réer gu métti gi nga xam ne yéen ci ñaareel bi mi ngi bëgg a gudd dégg naa ko muy wax ci wàllum gis yàlla ne Baye mo wax ni anal xaqu Baye Niass lépp lu mu wax rek daf ko roy ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam yonantu bi alayhi salatu wa salam waxna ci hadith bo xamne rot na ci bukhari rot ci Muslim rot ci Bayhaqi ci dalailun nubuwwa bu Bayhaqi rot ci allakka'i loolu rot ci téere ibnul muqri rot ci ibnul asakir ñu jëlee ko ci abi qataadata radiallahu anhu buxaari indi ko ci saxiixam jëlee ko ci abi saidin alxudari radiallahu anhu mu ne yonentu mooy wax de man ra'aani faqad ra'a alxaqa képp ku ma gis gis nga xaq léegi nag su fekkee yonantu bi sallallahu alayhi wa dafa wax ni ku ko gis-gis na xaq nga ne Baye Niass moo wax anal xaq day woote ak uluhiyatu kon xanaa yonantu bi sallallahu alayhi wa day woote ak uluhiyatu xanaa yonantu bi sallallahu day woote ak uluhiyatu kon jàngat bi ngeen war a def mooy jéema xool na maanaam jéem a am ay nazariyaat ci waxu yàlla ay nazariyaat ci waxu yonent bi sallallahu yoo xam ne da ngeen koy dëgëralee dalil yu dëgër waaye wax nii rek di sàndi di wax loo xam ne dara nga ci xamut loolu musiba la te li may wax nii lu koy firndeel bëri na ndax rasulullahi sallallahu wa sallam moom laysat fihi darratun illa wa hiya mustaghriqatun fillahi tabaraka wa taala amul dara des ci moom lu dul ni lab na ci jëm yàlla ci ci buntu boobu la alquran di waxee wa ma ramayta is ramayta walakin allah rama te xam nañ ni badar yonuntu moo doon xare yàlla ne ko sandi woo ba ngay sandi waaye yàllaay sandi est ce que yàlla day wàcc di di di sandi ay xeej de det loolu mooy quwwal ilahiya mooy noor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bay moom loolu qahramaan bu yàlla la xalabatu bu yàlla la bu yàlla la yooyu yëpp dafay wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi nag xolool bi ngeen ñu bëgg a taqal waxuma loolu loolu ku ci bëgg a euh, leeral bu ma laajee ma leeral ci ay xulul ak ittihaad ak waxdatul wujud yéen ñuy tuumaal te dara du ci dëgg mën nañ ko leeral ba mu leer nañ alquran wax na beneen inna allazina yubaayi'unaka innama yubaayi'una allaha yadullahi fawqa aydihim ndax yàlla dafa wàccoon teg loxom xam nga loolu istigraaqu jamiu maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zarraat yi nekk ci moom yëpp dañoo defoon istigraq fi zaatillah tabaraka wa taala loolu nag baatu xaqu bi alquran ñëw na ci ay yoon nuzila ala muhammadin wa huwa alxaq alquran bi ñu wàcc ci muhammad wa huwa alxaq mooy xaq waaw boobu waab raabit la jumla lismiya bi تراب رابط لا شي جملة الإسمية بيغا خمني مبتدا خبر وهو الحق واتي تي محل نصب حال تي محمد صلى الله عليه وسلم دا خمغني جمل يي نيو معارف يب اي حال لك تو محمد مو جنا جيجي تي مات مانام كي كي ني ملالي في مو مو جيجي بمعنى هو اقرب موصوفين نهلا حالة كونه صلى الله عليه وسلم الحق كن القرآن زوى هو الحق منون تبنن حديث ومحمد حق يونتم وقت بوبم سخل تبوبم حق دون تك تجيخي تلو حديث بوب وحنني والنبيون حق ndax mom yoonu bi sallallahu alayhi wasallam dafa jago li ñuy tuddé atajalizati ñoom yonontu yi jagoo tëggali sifaat wal asmaa kon nag loolu ay sew-sew la yoo xam ne xam-xam moo la koy may ay tappale wala sosal nit moo tax nag eh, li des ci xadis bi lim ñuy tegtale mooy xaqu mooy yàlla ngi li ci des ci mbindee fi yëpp ñu ngi leen bindee ci xaqatul muhammadiya bi nga xam ne yàlla mu ngi ko jagleel yonontu bi sallallahu alayhi wa sallam si jëmmam ci kon loolu lu mata leeral la ñaari point yi laa bëggoon a leeralal waa jooju wala waaye soosu sant ba foog ni mi ngi def liggéey bu mucc ayib waaye boppam rek lay gasal kàmb mi ngi foog ni xam nga inkaar moom yi rek ñoo koy waral iñaan mooy benn ñaareel bi ñàkk xam-xam ñetteel bi